waxtu euh, jot na ba tegal ay euh, simili mbokk yi dalee na jàmm ci euh, xibaar yi fii ci M4 TV. ñu koy euh, daal euh, dooree ak proposition bi nga xamante ne euh, ñii di waa PDS sàkku nañu ko nag ngir ñu amal ab commission d' enquête parlementaire loolee nag daal di nañu koy tàmbale ni ki tey jii nag foofee ci assemblée nationale di pencum ndaw réew mi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar mu mel ni nag ni ki tey jii sax ci assemblée nationale nag bari woon na coow lool gannaaw ba yenn ci ay député yi nga xamante ne ñoo bokk ci boobu le parti di parti démocratique sénégalais ñoom nag. taxaw nañu temm nag ngir euh, seen mbër di euh, Karim Wade nag ñu euh, boolewaat ko ci candidat yi lu ko mooy rek bu ñu sukkandikoo ci seen xibaar ci kàddu yi nga xamante ne ñii di député yu parti démocratique sénégalais ñoom nag daal dinañu koy yëkkati lu ko mooy rek Karim Wade bu bokkul ci yooyu la élection présidentielle ay élection nag du am fii ci réew bu Sénégal te moom di Karim Meïssa Wade nag bokk ci ci euh, boobile euh, ndaje la ñuy euh, desandi ba tey ni ki tey jile foofee ci assemblée nationale gannaaw ubbiteeb commission d' enquête parlementaire bi nga xamante ne ñi sàkkuteef waa parti démocratique sénégalais la mu mel ni nag gisoon nañ ci ay coow bokk nañ ci nga xamante ne nag mooy Thierno Alassane Sall moom mi nga xamante ne sax moo daal di yëkkati boobule coow jëm ci wàllum double nationalité tax ba ñu daal di écarté kii di Karim Wade ci course présidentielle. bi moom euh, Thierno sànn Sall sax di xamle ni dañ ko daal di amal ab agression euh, ni ki euh, tey jile foofee ci assemblée nationale muy xamle ni nag dina daal di porter plainte ñi nga xamante ne nag ñoo def boobile ñaawteef. ci boobu la assemblée la ñuy desandi ba tey moom Adjimberg Kanouté nekk nag vice présidente bu groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar moom nag euh, taxaw na euh, temm nag ci euh, commission d'enquête parlementaire boobu nag ngir ñu andi ci ay leeral mën a gindi askan wi gindi yi tamit candidat yi nga xamante ne ñoom la ñu daal di éliminer ci boobu la élection ku ci mel ni nag Karim Wade moom Adjimberg Kanouté nag di xamle ni lu jëm jëm ci wàllum euh, crise des institutions bi nga xamante ne ñenn ñi nag ñu ngi koy lam-laamee moom sax dafa daal de weddi loolu ba mu euh, set wicc ñu desandi ba tey ak wàllum euh, politique gannaaw lu jëm ci wàllum temps d'antenne bi nga xamante ne euh, loolee nag daal dinañ koy fësaloo na ni ki altine ji gii ñu euh, génn foofee ca RTS maanaam candidat yi nga xamante ne ñoo nara nag suubu ci élection présidentielle yi am nañu temps d'antenne bu ñu sukkandikoo nag ci président bu Sénégal di Babacar Babacar Fall Babacar Diop nekk foofee ca Sénégal moom sax yëkkati na ay kàddu nag di xamle ni boobu les temps d'antenne nag ku ci nekk ci candidat yi nag di nga ci am lu toll ci ñetti simili ngir convaincre ñi nga xamante ne nag ñooy euh, sénégal yi ci seen euh, programme ak euh, ci seen i projets yi nga xamante ne c'est des projets de société jëm ci élection présidentielle yi loolee nag di temps d'antenne bi nag mu mel ni liñ ci seetlu nag mooy moom ma Bassirou Diomaye fay nag bokkul ci boobule temps d'antenne gannaaw ba nga xamante ne nag jamono ji ñuy wax ak yéen nag mu ngi ci loxoy yoon lu jëm ci wàllum temps d'antenne sax yenn ci ay candidat euh, di euh, fukk ak juróom-ñeenti yi nag ñu bari ci ñoom nag dañu ko euh, daal di ñaawlu maanaam dañoo daal di xeeb ñetti simili yi nga xamante ne moom lañ leen jox ngir ñu waxtaan ak askan wi ci seeni programme foofee ca RTS di rajo télévision sénégalaise ñu daal di àddu ci leneen wax ci wàllum effondrement euh, di dal bi nga xamante nag moo daal di daanu woon ni ki euh, démb nag foofee ca Liberté 6 wala sax ca Yaraax gannaaw ba nga xamante ni bilan bi nag jamono ji ñuy wax ak yéen nag toll na ci juróom-ñaari doomu aadama yi nga xamante ne nag ñoo ñàkk seen bakkan ci euh, boobule effondrement di ab dal bi nga xamante ne moo daal di daanu li ni mel nag di ab situation bi nga xamante ne ñu bari nag ñaalu nañu ko rawatina ki nga xamante ne nag mooy directeur général bu yoroon. lépp lu jëm ci wàllum construction bu bâtiment ba di Mamadou Thiam bu ñu sukkandikoo nag ci moom euh, di ay révélation yi nga xamante ne sax daal dina koy def ci boobile bâtiment ñii di euh, ouvrier yi maanaam ñi nga xamante ne nag ay maçon la ñu nag doon liggéey ci boobile bâtiment ñoom nag dañoo euh, qualifié wul maanaam amuñu benn qualification moo tax nag ba boobile dal daal di a daanu ñu euh, daw euh, wutali ci Union européenne wala sax ci mission Union européenne bi nga xamante ne ñoom nag jamono ji ñu ngi fii ci Ndakaaru ngir nag euh, saytu lépp lu jëm ci wàllum élection présidentielle yi ñu dëgmal loole nag di boobule mission di mission bu Union européenne ñoom nag ñu ngi sàkku ngir gis ak candidat bi di Bassirou Diomaye Faye moom mi nga xamante ne nag jamono ji nag dañu ko daal di làq cant bi bu ñu sukkandikoo nag ci seen njiit di Malin Cox euh, moom sax yëkkati ay xibaar nit ki euh, tey jii nag ci àllarba ji di xamle ni euh, képp kuy candidat bi nga xamante ne conseil constitutionnel nag daal dina lay valider am nañu droit ngir giseek yow rawatina nag kii di Bassirou Diomaye Faye moom mi nga xamante ne jamono ji nag moo nekk ci prison bi. mbokk yi loolu ci ay xibaar jëm ci union européenne di mission bi nga xamante ne ñoom la yebal nag ngir ñu observer lépp lu jëm ci wàllum élection yi fii ci euh, Sénégal loolee nag mooy daal di buur xibaar yi euh, fii ci M4 TV ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo génn safo seen chaîne ba di fi taxiloo euh, xibaar yi di leen wax saa su ne rek di leen di partager di liker tey partager itamit lépp lu jëm ci wàllum programme yu M4 TV ñu jox leen dig daje ni ki ëllëg ci waxtu wi jërë ngeen jëf.